ci ginnaawam loolu lañ ciy séentu en se disant que peut que le régime dina dugal loxoom ci mbiru justice mhm. et que justice daan ma ñu retirer ma le le signal c'est ça la manipulation mais justement par rapport boobu noonu euh, redevance TDS yi aussi beneen problème la mais 12 mais mun est-ce que am nga ko te war a fay ay salaire ci fin du mois bi xam nga ah. tax mhm. pays dafa jaxasoo ba nga xam ne on déporte dans l'espace public li nga xam ne ça relève entreprise dangay amee impôt parfois nga fay dans les temps parfois nga bañ nga fañu fayoo dans les temps res ñu defal la moratoire respecté woo mhm. euh, impôt def la ADS ATD mhm. moi je sors pas pour dire que les impôts dañ may combattre ou que c'est l'État qui est derrière redevance mhm. dañ ko war a fay lu ñu war a fay la Euh, situation économique mais le climat n'est pas favorable hein? oui mais mhm. situation économique bi bu mettee nga amee redevance euh, dam loo war a fay la dafa mel ni tey nga dem sama comptabilité génn sama problème yëpp teg ko sur la place publique après di gëmloo nit ñi ne et eh, kii dina tëj parce que loolu la ñu yàkkamte mhm. waaye wallaay dinañu xàddi merci beaucoup <laughs> dina ñu xàddi gis nga cette TV bi c'est un label c'est une chaîne de télévision boo xam ne sa énergie sama énergie suñu ak suñuy moroom ak ñi ko gëm ñëpp ak sénégalais yu baax yi toog ci seen kër yi boo dajeek ñoom xam nga leen xamoo leen ñu di la apporter seen soutien loolu moom mooy barke kër gi.